salaamaaleykum. maaleykum salaam. Zaram ñu ngi lay siyaare. Eh, def. ah déedéet eh, ah, eh, <laughs> yi moom gars yi moom des fois des fois des fois dañuy kii quoi dañuy. Euh, am bu lu bare bare man. maa ngi mhm. Mhm. yaa maa ngi sant yàlla bu baax a baax. ñu ngi lay delloo ah, ziar euh, barki démb moom li am moom ñu kontaan nañ ci lool lool lool loolu mag wala boog man kontaan naa ci te képp koo xam ne ku bëgg lu baax it kontaan na mhm. ndax mbooleem xale yi nga xam ne danoo newoon ci production yi ci affaire wàllu politique ngir mhm. yàlla na ñëpp ngeen fekk mun génne ñëpp génne Ousmane Sonko génne euh, Bassirou Diomaye Faye mhm. génne ñëpp ndax wax danoo war a dem bu mhm. mu toll normalement war nañoo mën a jàpp date bu ko defee nit ñi dem campagne ndax ku campagne ñu doon campagne am ku nekk xam sa dinaa génn xam ni sa dinaa nit ñi mun la fal la mhm. lii leen waaye ay bind bi moom saa na baax mhm. yàgg nañ fi te teewul bind bi dafa seeroo ba desee ay ay ay ay ay fan wala ay weer wala weer Mm-hmm. loola jëru ci ñëw naan nan wàññi dund bi bi mm-hmm. defar xëy mi fexe ba lépp artiste day lépp ba lépp jaar loolu ñu seetu waaye ñu seentootuñ ci ñoom ak dund ba wàññi wala leen doon mm-hmm. léegi nañ jàpp noonu élection yi balaa sori ñu ànd dem def élection ko ku réew mi bëgg ñu fal ko lii moo fi nekk Mhm. waaw yal nañu yàlla doon jàmm te doon ñu sutura bu baax. amiin doon ko war a jàpp bu baax na nekk ci jàmm. merci merci merci beaucoup vraiment wax ji am na solo trop ah am na solo trop vraiment c'est le aussi pour ma ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy teewlu vraiment gis nañu appel yeeg ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen jaar ah ku ci nekk su ma soñoon damay jaar ci sa tur waaye nag xam nga am na ñoo xam ne itam xëy na bëgguñu ñu jàllale seen tur ci télé waaye ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di jaar gis nañu appel message yi vraiment tous les encouragements euh, salaamaaleykum des yi nga xam ne vraiment neex na ci sa xol trop maa ngi leen nuyu di leen jaajëfal oustaz na def Ibrahima Sow sama patron. naka waa Gambia. yaa man de loolu dégg naa la dégg eh, eh, ah, soxla si bu ñëwee doo téléphone du seet sa téléphone ah sirom na topp. Oustaz baal noonu. <laughs> baal noonu. ah mais dama ko ko dama ko ko. waa waa léegi waa d'accord léegi après dañ ci déggante. <laughs> non maa laaj na balaa koor gi di jeex rek yow balaa koor gi di jeex dinaa wax gars yi. Ah. Euh, soxna si ñëw waaw soxna si ñëw soxna si ñëw soxna si ñëw <laughs> incha allah. waaw baax na Amine. waaw baax na di sant yàlla rek euh, di leen wax jërëgeen jëf. merci waaw man di sant yàlla di leen wax jërëgeen jëf. Euh, mhm. ci taxawaay bi ak. ni ko ñëpp waxee rek suñu jëwriñ yi jaar fii. Euh, ba ci see Moustapha mi génn léegi mm-hmm. euh, di nga alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbi ndox du wàcc yoonam mm-hmm. ñun ñëpp yàgg nañoo wax ne euh, Sénégal Africa Africa dafa mos a tiitaroo ay doomam mm-hmm. waa ay doomam di tiitaroo Africa boo xoolee démb gis nga li xew ci ngañ démb bi muy ñëw waaw ah, ba mu yëgee ne kii bi seet dafa daw ba mu mën a nekk Sénégal ko ko dàqal gis nga moom bi muy ñëw Sénégal bu muy dugg si bi mu ni ko wa ni ko Sénégal teew lii mooy mhm. lii mooy lii mooy Afrique lii mooy mhm. àdduna dañ bëgg dafa am rek loo xam ne ndeysaan xëy na rek waane la woon wala wàgg la woon wala bënd la woon wala balaa la woon boo mhm. xam ne yéen suñ borom ñu koy ñaan téyo yàlla yàlla na nga ko seppi ci xol yi waaye yàlla yàlla na nga yàlla na nga def ci xol yi ñu xam liñ bokk bu buñ ko xamee ba pare bu dara yàqu lu yàqu xaju fi lu ñaaw xaju fi lu bon xaju fi lu tilim xaju fi waaw su boobaa nag ñu gëx taxawat kenn taxaw saytu xoolaat boppam la ca mm. ñaaw lam doon wax la doon dëgg la doon ay sos la doon ay kàcce ki fen ba indi fii lii ñëpp ñu tuub yàlla jéggalu ci fa su dul yàlla duma dina fëdd seen digg ndax yàlla yàlla mm. kan ma wax la ko ko lépp ku tooñ jaamam yàlla yàlla na diggal ak moom te lii mm. yëpp ay tooñ la ay caaxaan la dëkk waxoon naa ko fi waxaat naa ko fi nee la kër caaxaan du ko yóbbu dëkk mm-hmm. caaxaan du ko yóbbu réew caaxaan du ko yóbbu dëgg ma ko yóbbu nay sax ci dëgg ak njub Mamadou Bassir Gade salaamaaleykum wa rahmatullah merci merci merci oustaz merci merci oustaz di ko sant di ko gërëm ah appel yaa ngi tegloo appel yaa ngi tegloo donc euh, gars yi dañ ñaan rek encore képp koo xam dugg nga rek ah, daal di nga gàttal rek ñetti simili jàpp juróom rek ah mu koy waxee rek may nees la ku ci nekk ku ci nekk càpp rek jox sa morom. ah salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax. naka journée bi. sant suñu borom. ayca bisimilah ci waxtaan bi yow la ñuy waaw di lay ziar di lay ndokkelaat si sa plateau bi di lay ñaanal yàlla merci beaucoup taxawaay bi yàlla na yàgg di yokk euh, fan bi yàlla mu waaye yàlla cent ans bi mhm. di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm am amin amin di jàmm nag ñoo ko mën a may suñu de amin euh, ndaxte doomi aadama léegi yàlla moo tànn tànne fam ne doomi aadama la gën bëgg kon ñun war nañ gën a bëgg suñu bopp ñu wéet parce que nit boo déggee ñu ne xamoo sa bopp mhm. dalay lay métti fekk dëgg la mais yàlla wàccee na pour nga xam sa bopp yow yaay kan balaa ngay xamal nit ki moom mooy kan mhm. kon déjà Sénégal euh, comme li ñuy wax rek mhm. dañoo réeree mbir benn côté ndaxte boo yoree xam-xam doon kilifa diine doon ustaas kilifa diine la sax benn doon kilifa aada ak loo mun a doon si àddina wax boo gisee luy yàqu si réew mi waroo ko waroo ko seetaan wala nga toog ne at bu at nga war a wax wala weer bo weer nga war a wax mhm. loolu yàlla moo yelloo loolu mais bu la yàlla mayee wax yu wala wax boo xamante maanaam xam-xam boo xamante ne da ngay gis da nga war a wax li nga gis ndaxte loo gis rek am na lu koy fànq bu dee ay ayib la bu dee jàmm la da ngay wax lu koy gën a yokk kon Sénégal lii ma dégg day plateau comme plateau lañ wax rek yow danga nga mun a déglu rek laaj laajte ñu wax la. allo ndaxte yow waruñ la sax di imposer laaj ndaxte yow yaa war laaj laajte. allo kon loolu tamit gars yi war nañ ci bàyyi xel waaw. waaw waaw waaw ma ne euh, est-ce que mën nañ jublu ci waxtaan wi euh, la ñuy waxtaanee maa ngi koy euh, fàttali bokk na ci président mi tàmbalee giseek ñi nga xamante ni ñoom ñooy acteur politiques yi ngay xool ban bis moo gën a baax ngeen ñu jàpp ci élection yi loolu benn la ñaareel bi mooy ñi nga xamante ne jamono ji ah euh, te nañ leen ci kaso mu di Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye ñu am yaakaar ne ci jamono ji nga xam ne ñoo ngi bàyyi ñu ñu jàppoon ñu gis ne ay détenus politique lañ ñoom am nañ yaakaar ne xëy na fii ak ay fan yu néew dañ leen dañ leen mën a bàyyi loolu lépp nag euh, moom la ñuy waxtaanee tey door rek moom semaine bi. waaw euh, Cheikh bi comme ni may rafetloo sa plateau rek comme maanaam lii ma la lii la wax nii fa laa doon jëmi bu fekkoon ne waxoo ma loolu sax man fa ndaxte ñun tamit euh, xam-xam la ñuy demee rek demee wuñu actualisé comme maanaam ñun fii lañ far fee lañ far comme chaque jour li ñuy wax rek mhm. wax bi na forcé wuñ ko kenn pour mu ko ñun dañoo tëddee njaaxaanaay mais wax buñu buñu amee fi ñu ko jëmale rek da ciy am ñi gis seen bopp ñi gis seen bopp si nii ñi gis seen bopp si mais lii xew Sénégal dafa am fu koy tàmbalee ak fu koy jeexalee lu lii ma lay wax nag si sa plateau bi tey di nga di nga di nga toog di nga jeexal sa plateau bi doo ko dégg ndaxte lu yéeme laa lay indi ñu si plateau bi gis nga euh, élection yi ñuy ñuy ñuy waaj a tëggaat comme rek maanaam wax jëloon na décision bi da koy delloo gannaaw euh, loolu am na ñu bari ñoo xamante ne sante nañ ko suñ borom mais tamit am na côté boo xamante ne moom ndeg jeexal na dafa am heure boo xamante ne daf ko war a def mais jamono biñ toll nii li ma seen jaxasoo bi élection yi war a jaxasoo nii. barke Cheikh Ahmadou Tidiane bu ko jàppul si ñaari fan yi ñaari fan yi ma la wax nii muy lundi jeudi jour bum mu ko mun a jàpp élection yi ku mu mun a bokk ak ku munta bokk élection yi dina jaxasoo te moom ndéeg wax na ne da koy teg si loxo yu leer nekkul ne moom buur la da koy teg si loxo yi leer rek mais Sénégal dafa am importance pour ñu teg ko si loxo yu wóor moom it jeex na jeexal na pour mu dem yal na jeexalee si woy bu rafet mais lii ma lay wax nii nañ ko teg si ñaari fan yi muy lundi jeudi bu koy jàpp na ko jàpp si ñaari jour yi sinon bu ko jàpp si ñaari jour yi jour bu ko mun a jàpp élection yi dina jaxasoo te bu jaxasoowee woy dina jib foo xamante ne kenn foogeewu ko woon foofu te élection yi kii ma gis nii ba léegi chaque jour ki ma leen wax ne moom la gis si bopp réew mi nii mu war jël deux mille vingt quatre bii bu dee élection yi sotti na wallahi la azim dina bett ñëpp te kenn du ko ko foogee te ay baaraam yu bari ñu ngi ko koy duut ne kii du bokk maanaam kii du ko mos jël kii yelloowul réew mi te kooku la yàlla def pour mu yelloo réew mi nag beneen bi ci topp muy détenu man yàggoon naa le ko wax euh, décembre laa leen wax ne gis naa génnum Ousmane Sonko nii nii nii mais gis nga comme li ma lay wax rek bu nga yor xam-xam di wax lu la neex wala yor xam-xam di far ñoom ñooy lor zaari Ousmane Sonko yi zaari Macky Sall yi zaari ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ndaxte waxoon naa leen décembre laa gis génnum Ousmane Sonko bu bu rëccee décembre bii gis na fi ngeen di teg seen tànk da ngeen koy teggi teg ko feneen foo xamante ne da ngeen koy nangu Ousmane Sonko mun a génn si fii mu nekk nii denn si njabootam te ñun ñii may wax ak yow ba si man mii di wax ak yow barke Seydina Mohamed Ousmane Sonko bokk naa si ñi koy ñaanal pour mu génn si kaso gi ñibbi si njabootam da di njabootam ñoo ko gën a soxla fee mu nekk ne këram këram la ko gën a yel moo ko gën a yelloo ne kaso fee mu nekk ne ak keneen kuñ fa mun a tëj mais nag jamono biñ toll nii nga yokku karaw euh, xar mi karaw loolu dafa baaxut di woote si plateau bi di wax ne ay détenu yi nii détenu yi na le kii dafa waroon a def lii nii c'est trop tard mu génnee ñii ne si kaso bi bàyyi leen ba mu génnee ñi nekk si kaso bi d'accord mu ngi def dialogue ku mun a wuyu ji dialogue dem wuyu ji dialogue ku mun a ji dialogue ngeen déglu ko fu mu fu muy mujjee mais di yokk xaar mi karaw di wax ne nii kii dañ ko war a génne wala de c'est trop tard dafa am dafa dafa ñàkk pexe moo tax mu koy def loolu loolu kuy taal dëkk mooy def loolu merci merci beaucoup nañ bàyyi Macky Sall mu def lu muy def mhm, merci ki may tëjee nag mooy Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ak ku mun a doon si biir kaso bi képp ku yellew génne rek nañ nañ leen ñaanal yàlla ñu génn ñibbi si seen i njaboot. Mhm. mais élection yii mu jege mu ñàkk a jege. man mhm. gisuma gisuma mu jàpp ko si fan yu fanam yu jege man fi ma ko gis na ko maanaam na ko jàpp si date boo xamante ne képp